waa kan moo nekkoon Ndongo loolu dinañ si sawar wax kem li ñu xam si moom ndax doomu aadama moom di nga ko xam mais doo ko matal nit moom loo ko gën a xam mu gën laa xam boppam waaye kem li ñu xamoon si moom mooy benn nit la boo xam ni euh, li li li nit ñi di si moom tey fàttaliku rek ak yéen ak ñeneen ak ñeneen wane na moom mooy kan ak li mu doon pour man. li ma doon wax sama gars yi sànq si oto bi ñu dem suba nee naa leen Ndongo man ni mu doon jooyee sax paren saa ñu ànd muy jooy damay dem ba dama si énervé wu nii mais lan moo tax kii moom muy jooyee nii quoi di jooy comme si dafa am lu ko metti si àddunaam ndax daan na jékki-jékki nga ànd ak moom si otoom mu jékki-jékki gaare otoom wàcc jooy jooy lu yàgg xam nga nga laaj ko lan la mun la dara nan dem ni ma ni ma àdduna mu solo nan dem xam nga ba yow mi ànd ak moom sax dangay mujj da ngay mujj da jàpp da bu fekkee da nga nekk koo xam ne nii bañkat nga wala dara loolu dalay lay metti ba danga koy mujj bëgg a faj bu fekkee lu koy metti la wala lu ko metti mais danaan la du dara yàlla baax na ñu la nan dem suñ doon wax si moom nii fi dañuy fanaan te du jeex lañ loo xam ne chaque jour chaque événement loolu day nekk si man tout le temps événement musaana jot tabax si wala dara nii nii loolu du ma ko fàtte ndax dañ daan jël ñun ñëpp boobu lañ gën a nekk tout tànk sax ñëpp moom moo nekkoon seule personne boo xam ne si famille bi si li nga xam ne man fekke naa ko xam nga ndongo yàggu si aar bi def si lu mat sax 3 ans waaye famille bi ñëpp la daan xottil ba pare yaayam toog papaam toog mu naan wax leen lan ngeen bëgg ma def ko boole ko ak ay jooy loolu amatul si artistes yi xam nga loolu daf ma remarqué daf may remarqué tout le temps. yaay wax lan nga bëgg papa wax lan lan nga bëgg boole kat ay jooy gisaguma ko loolu dafa ma tuuse di ñaan yàlla daal fi mu nekk fee sa mu gënal ko fii mu jugee. kon man ndongo moom li ma gën kaa yokk tamit ñaar la maanaam dafa oyof bàyyi fal la dafa oyofal àdduna loolu daal moom gën a remarqué si moom en même temps tamit woy yi muy woy thème la daal ay paroles thématiques lay def par rapport ak comme suñu artistes xam suñu artistes yi léegi dañuy woy waaw di woy di di di améancé moom nag. parfois day woy ba mu yàgg sax nga dégg tout le temps da nga ay son noonu day woy mu yàgg mu ne ay son thématique loolu moom moo gën a marqué si moom bon li ma am moom mooy comme Ndongo Lo bokkul woon ak yeneen artistes yi nii am nii parce que comme oyof bi mu oyofoon bëgg nit ñi maanaam yamale boppam ak nit ñi nga xam ne comme doo gis nit di tiitaru wala ngay jaay affaire wala genre yooyu moom Baay Faal la woon loolu la doon dunde moo tax yàlla fayee ko lii tey foo toll si àdduna da ngay dégg Ndongo Lo da ngay da ngay romb sax muy way nga taxaw wala nga yëngal sa bopp wala nga am loo xalaat sa xel loolu bon li ma gën a marqué si moom mooy jour bi muy décédé boobu dama dama dem entraînement ba ñëw di reer yi ñu wax ma ko ma am lu ma met gëw ma ko ci mbedd yi laa mujj di wëreelu noonu déw ma suñu kër laaju ma kenn nekk ci mbedd yi mel comme dof mais li may dox lépp gëw ma ko ndax man fii laa juddoo si koñ bi yaroo ci ay loxoom màggee ci ay loxoom mën naa ne na sax ñoom papa lañ ci man ndax Ndongo Lo dafa nekk koo xam ne dafa sori su ñun am na loo xam ne nag dund na kook ñun donte na boobu sax ñooy nekk ay xale yu ndaw boo ko moom koñ bi ñu remarqué xam nga di doo daakeek moom ba ni muy demee ba ñu tuxu Touba ba mu ñëwaat ba ñu commencé di ba mu commencé di way ñu dégg albumam mu marqué ñu torop ñun sax dundoon doon tiitaroo loolu bu ñu demee fenn ñu ne ñu leen dëkk ñun la ñun koñ Ndongo lañ dëkk koñ bi nongoloo juddoo muy koñ cere ñun fa lañ juddoo yaroo fa xam nga nongoloo suñu suñu suñu papa la suñu lépp la parce que dund nañ affaire yoo xam ne lu ñu marqué si man moom li ma gën a marqué ci moom bu daan ñëw fii si koñ bi bu daan ñëw boobu moo yor BM bu giri bi bu daan ñëw fii dama woo na ma eh kaay yow moom sama doom nga bu ma ñëwee ñëpp dañuy taxaw xale yi mais day yëkkati xaalis bu bëri may ma ko mais su ma xasee ba may xaalis ba rek damay wane ginnaaw daw dootuma ko sa sax lijjantee muy affaire bu ma marqué ci moom oyof boobu noonu moom yëgul woon artiste bi yëgu ko woon moom li mu doonoon yëgu ko waaw di ko ñaanal rek fi mu tëdd yàlla defal ko fa xéewal sëñ Fallou wéetali ko fa ci barke sëñ Fallou. parce que tey bu ñuy wax si Ndongo Lo fii la ñuy fanaan ndax kenn ku ci nekk xëy na li ñuy wax rek kenn ku ne am na lu mu am na am na lu mu def ci yow muy ñi nga xam ne tey comme genre sele gi nga xam ni tey bi muy dëddu booba ay xale lañ. mais lu ñu ndaw ndaw ndaw jëf na ci ñoom loo xamante ni tey donc ñoom ñu ngi koy ñu ngi koy bàyyi xel parce que sa wax na ko léegi ci biir wax mu ngi gën a màgg di gën di xam Ndongo Lo loolu nag moom moo ko jëfoon te dama doon dégg ci sama yaay Mariétou Fall ci waxam yu bari te di ko bëggoon am fu mu ko teg maam Cheikh na ko ndax ci biir waxu maam Cheikh rek yaa ngi dégg mu naan ñaar la Ndongo Lo gënoon a bëgg ci àddunaam muy yaayam ak papaam te man loolu dama am lu ma ci leer parce que police bëggul dañ maa wax maa fekkee la bëgg man am na loo xam dama ko fekkee ndax damay toog ak yaayam nga xam ne dañ doon toog di waxtaan ci lu bari sax maam Cheikh a ngi nii toog mu ma ci wax lu bari moo tax lu bari ma xam ko ci mais dul nag lépp lañ mën a toog di ko wax parce que day gudd. Ndongo Lo moo tuddee Yannick parce que moom suñu borom def na lu la tuddee wala lu la wax loolu dafa dafa barke day dem. waaw mu tuddee woon ma tur boobu xam nga man tur boobu sax moom laay dégg seeni kenn xamu ko boo taxawee laaj seeni duñu la ko wax waaw parce que moom tuddee woon loolu. waaw que damay rappelé ñun buñ daan fubal bu suñu bal suñu suñu dooree bal mu jàll bu nangu la dajeeg bal bi ñàkk bal bi waaw da koy dóor ba duñu gisati bal bi léegi suñu bal bu kii rek ñun dañuy daw ne nangaloo ngi ñëw xam nga yooyu moom maa koy rappelé bu baax ci moom. di wax tamit nit ku baax la koo xam ne kon ni ko Sénégal yëpp waxee rek. ndax nit moom su baaxee ñëpp koy wax waaw nit la boo xam nit ku baax la nit ku yërëm ay rakkam lañ waaw te tamit loolu moo am solo ci dund nit bu dundee ba génn àddina te deful yi dundam niin la waaw kon moom ñu ngi koy ñaanal suñu borom defal ko jàmm fa mu nekk suñu borom xare ko àjjana lépp li mu bëggoon nag ci njabootam suñu borom tekk ñooñu loxo